ni ko noonu dina dund ba dee peut-être du xam luy galère waaye tey ay jëfam ji moom moo ko wëllu si euh, te li ci gën a métti nag mooy koo ko teg mooy doomam ndax yaakaar naa ni euh, papa dina xaar si doom leneen euh, lu dul jëf ju mel nii kon moom mi nga xam ni moo di Tanor mu ngi boole métitu àdduna waaye nag ak naqaru xol ñu jàll ci géej ki géej gi nag moom day inquiété wu pour Serigne waaye Aïssa war na ko ni ko moom Serigne intéressé tu ko ndax ki nga xam ni moo di a yaakaar naa ni bu fekkoon ni que tout am na problème day taxaw euh, temm rek ngir bëgg ko see jàppale ndax ku ne xam na ni euh, ñoom ñaar euh, ñooy ay xarit waaye Aïssa moom jamono ji lenn moo ko yitteel te mooy profité wu bonheur bi nga xam ne mi ngi koy dund ak jëkkëram di ki ku xam na ni itam juboo dafa neex ñu jàll ci beneen séquence ñu gis ni sëriñ ñu ko gisee ni mu accueillir policier yi ak ni nga xamee ni noonu la amee kër net day mel ni rek kon suspect bi nga xam ni moom la ko def day mel ni laale wu ci dara waaye nag policier bis mujjee na ko arrêté ndax rek dañoo retrouver ordinateur ak téléphone Siré Fall euh, ci biir këram euh, donte nag euh, day jéem ni niye ne xamul lan moo ko fa dugal mu mel ni kon moom Serigne peut-être victime la li nga xam ni moom moo xew peut-être nit def le sale boulot ba noppi ñëw def fa ay bagage u Siré Fall comme ni ñu defee corps bi ci toolu ñi nga xam ni ñoom ñoo di waa kéwél muy loo xam ni kon lu doy waar la waaye ak lu mu ci mënti doon moom Serigne du yomb rek ngir mu génn ci mbir mi ndax yaakaar naa ni nit bu gaañoo ñu fekk ay bagage sa biir kër loolu moom pour nga seet si du yomb ñu jàll ci encore Mor oncle Mor nag ñu naan fulaay jaay daxaar sinon mañam jeexal ko loolu la bëgg a dëkkee ak Ami Collé léegi nag euh, donte bëgg na Ami Collé waaye mi ngi bës ak xolam di xeex ak ngir nag bañ tuutal boppam euh, ci kanamam Ami Collé moom mel na ni daa bëgg a rëccu waaye dañu naan rëccu dina fekk jëf weer ndax bi mu ko yombee dafa bañoon tey nag bi nga xamee ni oncle Mor war na ko ginnaaw mel na ni tey la gën a bëgg jege nga xam ni moo di onkul Mor ñu jàll si euh, yaayu Mariatu di ñilaan moom nag expliqué na ko li tax ñoom ñu bañ géy jàpp nañu ni le fait ki doon séq tax ñu euh, mere ko ndax dañoo jàpp ni géej gi kon doon profité wu ci moom ba tax na kon jamono ji euh, jàmm la bëggaat mu dellu si ndax mbirum vieux Camou ak lépp dañu koo bëgg a euh, bàyyi daal di teg ci ginnaaw mu mel ni kon ñilaan ak Mariétou peut-être mën nañu xaar déggoo si ñoom ab juboo si ñoom ndax ku ne xam na itam mbaam wex na doom ja waaye bañu ko xam na ni diggante wayjur ak doom luñ am réeroo réeroo pour ñu juboo day yomb ndax yaakaar naa ni mbëggeel bi fa am foofu rek la am ñu jàll ci Ami Collé Ami nag moom dafa kontaan ndax gis que ni euh, Gaye ki euh, instant yi mu ngi dund bonheur yaakaar naa ni nag lu fees si xol feeñ ci kanam nit lépp loo xam ne mi ngi koy dund bu dee naqar dina feeñ ci kanamam bu dee bànneex dina feeñ ci kanamam waaye Gaye ki koo gis xam ni mu dund jamono ji wute na trop ak li mu daan dundu fan yi euh, mu génn loolu nag tax na Ami Collé daal di ci kontaan ndax Ami Collé mel na ni rek Gaye ki da koo jàpp ni doom ñu jàll ci Aïssa Aïssa nag moom mi ngi souffrir bu baax a baax ndax à chaque fois bu xalaatee li nga xam ne Serigne def na ko bëggoon Serigne ak fi mu toll woon ci moom parfois kon di nga am déception mu am fu muy toll c'est parce que euh, nit ki nga xam ni moom moo ko def mu toll ci yow euh, lay na ni Serigne du euh, si noonu nag pareeguñ ñu indi waxu police bi si ba tax na ki nga xam ni moo di Aïssa daal di ciy waxtaan ak Géeki waaye Géeki day delloo na ni ñu naan delloo naar bi xoromam dafa ñëw nanguwul gëm dara ci li nga xam ni moom la ñuy accuser Serigne ndax ku ne xam na ni Serigne noonu la mos a taxawee ak moom jàll ci Khadija Khadija nag moom euh, bàyyiwul benn yoon ba tax na tey dafa woo papaam ngir daal di koy signaloo document buy wane ni renoncé euh, mu mel ni nag du yomb benn yoon ku xam euh, Tanor am ni rek du bàyyee noonu mu sedd ba tax na nanguwul signé yooyu les documents nag ñoom bu ñu xamoon Tanor dëgg yaakaar naa dinañu méfier wu ndax Tanor forcément dina am coup rek bu mu leen di préparer ñu jeexal ak Serigne Serigne nag moom kon mel na ni deewu Siré Fall bi impliqué wu na ci ndax li mu wax géej gi preuve la que ni am na rek lu mu ci def dàq Siré Fall ak di wax kan mooy Siré euh, Fall waaye géej gi da koo tourné le parce que jàpp na ni kon euh, ki nga xam ne moo di Serigne da koo nëbb boppam ndax ñoom daawuñ nëbbante dara kon lépp loo xam ne xamoon na ko ci Siré Fall daxa ko waroon a wax moom moo gën euh, ni nga xam ne ni mi nga xam ne moo di Serigne nag mi ngi koy jéem a convaincre ngir mu bañ koo tourné le dos ndax moom Serigne jàpp na ni saa bu géej gi xonkoon moom moo fi doon nekk rek ngir daal di ko koy fompal kon mbokk internet la ñu yem ci